salaamaaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sports 221 transfert la ñuy ñëw ak ki nga xamante ne mooy Bamba l'international sénégalais kii xibaar bi dafa biral ne ñii di Freiburg muy Freiburg ci Allemagne dañoo dal di ñi nga xamante ne ñoo teg njëg toll ci huit millions d'euros mu juróom-ñetti millions waaye nag ji nga xamante moom la bëgg ci Bamba Dieng mooy lum néew néew millions d'euros jàpp millions d'euros loolu rek moo koy génne foofule kon ñii di Freiburg nañu ñu jot ci ndaw bile ki nga xamantene moy Fabio Silva bi nga xamantene ñu bari jappon nañu ne sax mo wara don ki wutu Cristiano Ronaldo ci euh, équipe bi di Portugal mu nekk international portugais di footballer ci club bobu di Wolverhampton di xalé bu xarañ mom nak dafa dal di joggé ci Wolverhampton dañ ko abl nak ci club bi di Anderlecht voilà gannaaw bi mu prolongé ben atu contrat yok ben at bok ci contrat am ak jiri Wolverhampton abl nañ ko ben saison ak ñi nga xamantene ñoo di wa Anderlecht fofu la ci Belgique Kepa Arizabalaga, moom nag jamono bi mën na dem Napoli Napoli wane nañu seen bëgg-bëgg bu baax a baax ngir signé ki nga xamante gardien Chelsea bi la di Kepa ñoom nag fi ni amul dara lu ñuy bañ nañu jot ci booy bi rek moo xam dañu leen koy jaay wala sax ñu abal leen ko Napoli wala daal yitte woon nañu bu baax baax ki nga xamante ne Kepa bi nga xam ne voilà moom at yi nañu wax jafe-jafe am temps de jeu ak club boobu la di Chelsea football club waaye problem problème bi mooy moom li ñu ko jënde woon dafa cher moo taxit buy génn club di Napoli gan. yoon en tout cas di Napoli gannaaw bi ñu jaay Koulibaly Chelsea football club ñu ngi ciy profito ngir signé waale ki nga xamante ne mooy Kepa Arrizabalaga bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. ki ñuy wax Nicolas Tagliafico Nicolas Tagliafico nekk argentin di footballeur foofu la ca Ajax kayiti xibaar bi la nañu ne moom nag day dem signé ak ñi di Olympique Lyonnais njëggu toll ci 4 millions d'euros moom latéral bi la voilà dina jógee foofu la ca Ajax bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Lucas Paquetá nekk international brésilien nekk foofu la ca Olympique Lyonnais moom itam kayiti xibaar yi biral nañu ne mu ngi ci yoonu dem fële ca Arsenal wala boog Arsenal dañu ko bëgg Arsenal daal yitte woon nañu lool ki nga xamante ni mooy kii di Lucas Paquetá tey it pare nañu def lépp ngir signé ko jëlee ko foofu la ca Olympique Lyonnais Chelsea football club nag ñoom dañoo defoon offre bu toll ci cinquante cinq millions ngir signé ki nga xamante ne mooy Jules Koundé ngir jëlee ko foofu la ci Chelsea football club waaye nag ñi nga xamante ñoo di Séville dañu ko dal di rejeté maanaam dañoo xeeb cinquante Chelsea tegoon ci taabal ji kon faw ñu yokk xaalis bu ñu bëggee jot ci booy bi di ki nga xamante ne mooy Koundé bi nga xam ne sax kayiti xibaar biral nañu ne moom bu joxe na li nga xamante ne mooy accord am ñii di waa Barcelone bu fekkante ne ñoom def nañu pexe ba jot juboo ak ñii di waa Séville waaye loolu nag mooy li nga xam ne xëy na Chelsea ci la ñu leen bëgg jiitu ndax Chelsea fi mu ñu ngi def effort ngir dal di signé ki nga xamante ne mooy Jules Koundé bile. voilà dinañu defaat beneen offre ngir war a mën a jot ci ki nga xamante ne mooy Koundé voilà kon fan ñëw Chelsea football club dina defaat beneen offre ngir signé ki nga xamante ne mooy Koundé gannaaw bi ñu defee offre bu toll ci 55 millions d'euros ñu daal di ko rejeté Barça nag moom gannaaw bi ñu waxee ne wala bëgg nañu ki nga xamante mooy Koundé ba fii ñu waxee dégguñu benn offre officielle boo xamante ne teg nañ ko ci taabal ji ngir war a jot ci défenseur bi la ki nga xamante ne mooy César jamono bi ci la Barça gën a concentré moom nag défenseur u Chelsea football club la kayiti xibaar bi bi la ne Barça moom ak joueur bi ci boppam moom am nañu déggoo depuis mars ba la weesu depuis mois mars ci la ñu ci ñaari ati contrat yoo xam ne dina ko téye ci club ba kon fii mu ne nii diggante ñaari club yi la des te fii mu ne nii mbir ñu ngi ci kawam bu baax baax jàpp nañu ne faleen fileeg fan yu néew daal accord dina dox ci diggante ñaari club yi ngir kii di Azpilicueta war a mën a signé foofu la ca FC Barcelone. Liverpool dañoo dal di fekk ci Manchester United ci dàqante bi ñuy def ngir signé ki nga xamante ne mooy Anthony nekk foofu la ca Ajax mu nekk brésilien boo xam ne ku mën a football la voilà Manchester di ko topp bu yàgg ba léegi waxaale bi yàgg lool waaye fi mu ne ni Liverpool fekk ci nañ ñu leen ci waaye daal ak lu coow li kenn ci ñaari équipe bi parewul fay ngi li nga xamante ne mooy cinquante neuf millions nga xamante ne ñii di Ajax ñu ngi koy laaj kon kii di booy bi xaw a cher xëy na looloo waral lii di waxaale bi yàgg lool diggante Ajax ak Man United Liverpool nag dugg na ci coow ñu xool ba xam fan la mbir mi di mujj Xavi Hernandez moom jotagul ba léegi li nga xamante ne mooy passeport am wala boog visa am ngir war mën a dem fële nga xamante ne mooy ca United States of America ngir war a amal li nga xamante ne mooy pré-saison yi groupe bu Barcelone bi dinañu jouer ni ki suba sans Xavi ndax war nañu jouer seen match bu njëkk pré-saison yi foofu la ca Amérique voilà match bi ñu njëkk jouer foofu la ca Amérique mu a dox seen diggante ak Inter Miami suba lay doon match la boo xam ne kii di Xavi dina ko wuute ndax ba fi ñuy waxee visa moom jotagul ko fekk ji yi foofu la ki nga xamante ne mooy Edinson Cavani moom kay di xibaar dañoo biral ne kat fii mu a nii moom jege na lool ngir am ak déggoo digganteem ak ñii di waa Villarreal voilà Villarreal jege nañu lool ngir war mën a signé ki nga xamante ne mooy Edinson Cavani bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Manchester City ñoom dañoo génne li nga xamante ni mooy seen euh, maillot bi nga xam ne moom la ñuy footballé ca biti voilà mu nekk maillot boo xamante ni xëy na couleur bi ni mel mosoon nañu ko fi am waaye gëj nañ ko gis ñu delloosiwaat ko muy rouge noir bi nga xamante ni moom la ñuy footballé ci saison bii di ñëw waaye nag mu nekk maillot boo xam ne dañ koy joué voilà en extérieur maanaam bu dee dañuy génn maillot bi bokk na ci yi nga xam ne dañu koy footballé mu nekk maillot couleur boo xam ne xëy na ñu bëri gëj nañu koo gis ak Man City voilà nga xamante ne mooy style bi maanaam dañoo changé style bi nga xam ne ni lañu ko liggéey woon mu nekk maillot boo xam ne xaw na rafet ci gët ci ñi nga xamante ne ñooy safoo club boobu di Man City war nañ ko mën a dem jëndi voilà muy rouge noir bi nga xamante ni moom la ñu dal di biral ci ne bokk na ci maillot yi ñu war a footballé saison bi lee Olympique de Marseille signé ki nga xamante ne mooy Luis Suarez Luis Suarez bi nga xam ne moom ab international colombien la nekkoon fële ca Granada mu xarañ lool nag voilà moom nag jeune attaquant la boo xam ne mu ngi toll ci 24 ans day signé ak ñi nga xamante ñoo di Olympique ki nga xamante ne mooy Ibrahima Wadji Ibrahima Wadji nekk fële ca Karabakh tey ji dafa dal di amal doublé ci li nga xamante ne mooy barrage yi ñuy football te mu ñeel li nga xamante ne mooy UEFA Champions League ñoom waa Karabakh tey ji dañoo dal di am ndam seen diggante ak ñii di Zurich Ibrahima Wadji nekk international euh, wala bokk euh, nekk sénégalais attaquant sénégalais tey footballé fële ca Karabakh moo dal di dugal ñaari bal ci li nga xamante ne mooy match boobule mu ñaal li di barrage yi muy préliminaire yi nga xamante ni ñaal la Ligue des ki nga xamante ni nag mooy Gilmour bi nga xamante ni moom joueur Chelsea la boo xam ne ni ki daaw dañu ko able woon muy Billy Gilmour nekk joueur boo xam ne ko xarañ la jamono bi kii Thomas Tuchel daf ko dal di xamal ni carrément moom bokkul ci li nga xamante ni plan wam voilà moom soxlawul booy bi mom kii Thomas Tuchel ci li nga xamante ni mooy saison bi ñu dëgmal kon lan moo euh, des ci mbiri mooy kii di euh, Gilmour dal di jéem a xool nan lay def pexe yi muy def ba génn club boobu di Chelsea voilà kii di xibaar bi la nañu Everton bokk na ci club yi nga xam ne bëgg nañu ko yitte woon nañu lool ngi signé ki nga xamante ne ndaw bile dal di nekk foofu la ca Chelsea ni ki daaw ñu ablé woon ko foofu la ca Norwich City mu def saison bu baax donte ne ñoom Norwich xëy na équipe la boo xam ne doole ji taxul koo bari waaye moom kii di Gilmour la boo xam ne ràññi woon nañu ko lool ba ñu jàppoon ne sax amaana ren ji Chelsea dinañu ko téye waaye gis ngeen fi mbir yi mujj kii di Thomas bi ci système am bu ñu ci kayiti xibaar yi voilà gars yi kon looloo fi rusinde woon ci tënkum xibaar képp koo xam ne gan nga ci chaîne bi ñu lay wax nga abonné rek dal di cliquer close notification bi loolooy waral bépp vidéo bi ñu fi dugal da nga bokk ci ñi koy jot continuer leen di suivre Sen Sports 221 the best sport news channel